baax a baax waaye dem mbégte trop waaw xam ne jotaay murit moom alxuraan moo ci jiitu nga xam ne borom alxuraan mooy Serigne Touba kon moom lañ koy wéyale ci suba ba léegi ñu ci am njàng kaay mu am solo te noonu koy wéyale tamit ba jotaay bi jeex bu ñu solo suba léegi ñu ngi fi jàng mel ni ñetti kaamil ci ànd ak suñu mbokk talib ak mbokk murit tamit noonu lay wéyale ba jotaay bi jeex kon ñu nga xamee ne benn kaamil benn suba moom tàmbali ba ñetti kaamil noonu lay wéyale tamit ba. jotaay bi xamante ni ba 23h incha allah noonu la ko noonu la ko fas yéene amee bu ne alxuraan tamit na xasida ni nga amee ci alxuraan noonu la ko amee tamit ci xasida yi incha barke borom Touba yàlla jul si yonent sant sëriñ Touba bu wér a wér di ko santaat bu baax si tawféex bii mu ñu defaral muy ñu ko liggéeyal ndax neexu kenn ku ne moo ko mën liggéeyal moom mooy tànn ku ko soob mu koy liggéeyal ñun nag ñu doon ay ndaw nekk si koñ bi sos benn daayira mu tudd Mafatihul Bichri Touba unité 5 ñoom nag ñu jël ma def ma jëwriñ bi ndaw matale moo waaye ñu jël ma def jiital ma def ma jëwriñ muy jëwriñu soxna yi soxna nag seen si daara ji lenn rek la booy soog boo feru nit ñi dañuy jéem def le tout ba nga jéem a feri fekkee tamit wàllum jàng xasida bi dimanche bu jot dañuy faral di durus di amal ay lim cant yi nag tawféex la si ñun. ku la defal dara ba ñëpp gis ko sant ko ba nopp yëpp dégg ko moo waral bés bii nag di sant Serigne Touba luñ ko sant doyul luñ ko sant doy ndax lu ñu defal tawféex la ndax amaana am na suñu yeneen morom yu nekk si leneen waaye tamit du seen coobare ndax sëñ bi mooy tànn ku ko soob. waaye bés bi nag ñi ngi siy santaat bu baax santaat bu baax Serigne Touba naan jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp di santaat soxna yi bu baax a baax ak wóolu gi ñu ma wóolu jiital ma donte matalew ma ko ñoom ñëpp ma jox cër mag ndaw am kersa lool lu ma leen wax lool la ñuy def te seetuñu si sama jëmm ji dañ koy def ngir jëmmi Serigne Touba rek waaw ñu ngi santaat ñëpp sant suñu waajur yi bu baax a baax a baax si bàyyi ji ñu bàyyi ñuy liggéeyal Serigne Touba ñoom tamit ñu ñu siy di sant suñu yaay boo yi tamit nekk si gox yi tamit ñu ngi leen di santaat bu baax waaw di soññat suñu mbokk soxna yi rek di leen wax ñu gën a góorgóorlu bu baax a baax te xam ne moom Serigne Touba ay mbiram njariñ kase la sa nafsi bi laa dara rin la wax njariñ kase gu àndut ak lor la di leen soññat bu baax a baax ñu gën a góorgóorlu te wax ni gën a seeralaat xasida yi ñu gën koo seeralaat bu baax a baax waaw loolu mooy secret bi sellal mooy secret bi ñu gën a jàppaat bu baax gën jàppaat bu baax a baax te xam ni nekk si bu jub moom yomb lu ne ngay dégg waaye gën góor góorgóorlu rek kumba tëxlu waaw bu ñu bëggee jëm si kanam waaw nañ daa def loolu rek bu ñu si bëggee génn incha allah waaw di leen soññaat bu baax a baax ñu gën a góorgóorlu rek waaw loolu daal lañ amoon lu ñuy wax si cant di santaat bu baax a baax di sant suñu jëwriñ yi tamit suñu jëwriñ yu góor yi jëwriñ Pape Abdou Khoudous ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant jëwriñ Gañ gis nañ seen taxawaay ñoom tamit bàyyiwuñu benn yoon waaye kay ñu ngi wàccee foofu kàddu tey santaat bu baax a baax.